way wu rafet. way rafet bi sëñ Momar Kayre Momar mhm. bu mag bi defal Cheikh Issa Diène ngir ndokkeel ko bi mu noppee ci jumaay njaareem. Mhm. mu ni ko li tax sëñ Touba bàyyi la ak ñooñu njaareem. Mhm. mooy is lasta tanharuhum yow da doo leen gëdd. Cheikh Issa ku rafetoon ay teggin la. mu ni ko is lasta tan is lasta tanharuhum daawoo leen gëdd yow doo gëdd kenn moo tax sëñ Touba bala ak ñoom. wala tuxawifuhum doo leen tiital di leen ragalloo mhm. léeg-léeg ñu soxla kilifa muy tiitalaate mhm. kenn du ko ñemeñ waaye loolu dalul Seex Isaa mhm. mu ni ko yaw de doo leen tiital mu ni ko doo leen dëral kaso yow say wax melul ni xeme doo jàpp nit naan ko kaso laa la yóbbu nangam nangam di la di leen tëkku say wax we xàtt mel ni xeme déedéet waaw daal di koy wax ni ko lam tux fi an um xuyóoran bal tusayyiruha mu ne ko yow de mosoo nekk di leen nëbbu ay yiiw ak i tuyaaba bañ taalibe xam ko ni buñ fa jaaree dañuy defar doon ko nëbb da nga leen koy wan te nga leen koy yombalal ba nu man cee jot doo leen jamew xay sa yiiw yi daal nga leen di jame yow doo jame kenn ay doo indi ay di ko takk ci kenn boo leen di jam waaw nga leen di jëme boo leen di jëme doo jëme ci ñoom aw ay waaye lu baax ngay jëme ci ñoom mhm. ci teraanga jooju mu ne ko xat xusta xunman wa ilman summa maarifatan yow day Seex Isaa làq nga xéewal koom lim ci amoon kenn amul waaye lépp la daan jox sañ Tuubaa wa ilman ak xam-xam te bu ñee diw am na xam-xam na ko boroom xam-xam yi wax sañ Xaamidu sëñ Momar Kayre moo ne ko làq nga koom waaye làq nga xam-xam wa maarifatan ak xam yàlla Seex Isaa ko xamoon yàlla mas naa dikkal sëñ Tuubaa di ko laaj turu yàlla bi mu nëbb sëñ Tuubaa daal di mel ni ko dummoo yu ni ko Cheikh Issa wan tur mhm. dellu ci liggéey bi nga naan ma tur mu dem ba jëmmi jamono mu del seeti laaj ko sëñ Tuubaa sëñ bi ni ko nga may bañ a laaj tur Mbàkke damaa xam ne yow ko xam te su neexee ma xam ko sëñ bi ko kon tëjal bunt bi te randu si ma xamal la mhm. mu tëj bunt bi tëj tëj tëj ba jege sëñ Tuubaa mhm. sëñ bi ni ko jox ma sa nopp mu jox ko sa nopp sëñ bi wax ko tur wi ni ko man yow yàlla bu ko wax kenn ba barzaq man yow yàlla waaw Cheikh Issa noonu na su fekkoon sëñ bi tegu ci boobu condition gërëm naa sëñ Baara Jenn kon ma xamal ko tur mhm. waaye li sëñ Tuubaa wax moo tax duma ko wax kenn te tur woowu dara jaral lu ma tudd ko lu dul asamaan suuf doon laale rek mhm. waaw gisuma lu ko jaral tudd tur woowu ngir rëyaay ga ak dayo ba te sëñ Tuubaa xamaloon ne ko Cheikh Issa kon ku xamoon ay secret la ci sëñ Tuubaa waaye boo demee ci jàmbaar ju mag gi sëñ Ibrahima Diop almasari yi mhm. radiyallahu anhu nga xam danoo defal mhm. portrait maam Cheikh Issa jenn mooy kan mhm. dani xaasal mafaqira Issa Diène zul karami wa faaza bil qurbi wa ridwaani bil xidami dani xaasa làq na ñu ni nga ko làq mu ne Issa Diène maam Cheikh Issa Diène lu mu làq mu ne almafaaxira lépp lu ñuy tiitaroo naan am naa ngërëmu sëñ bi tabax naa ay jumaa dee nga def naa nangam nangam bind naa téere tafsir naa lépp lu ñuy tiitaroo rek ci nitu yàlla nee na yooyu yëpp maam Cheikh Issa da yàlla ne ko làqu mu ni Issa Diène nag zol karam yi mooy borom tedd nga ga li ñëpp doon wut daal la gën a tedd la ko yàlla jox mhm. wa faasa bil qurbi am na ak jigéen nag ci yàlla am na ak jigéen ci yenant bi am na jigéen ci sëñ Touba. daam ana foto maam Cheikh Issa jenn bi ndax sëñ Xaamidun jege ci yàlla mhm. mënta weesu képp ku tuddati lislaam tudd Cheikh Issa sa mhm. liggéeyam ci islaam moo ko may jigéen yàlla mënta weesu naafile kat la bu daan naafile guddi gépp lu jiitu muy ñëw ci sëñ Tuubaa mhm. ba ci naafile yu bari yi mu daan def mhm. ci la tëddu gis gu yanant bi alayhi salaatu wasalaam yanant bi nàmpal ko ci gént mhm. ni ko li des ci sama soow jox naa ko Cheikh Ahmadou Bamba ci la laxase fekk sëñ Tuubaa fële ca mbal ba mu ñëwee sëñ bi jëflanteek moom jëflante bu gaaw ba mu ñëwee rek sëriñ bi jox ko gopp ni ko demal nga bayal ma dëpp néeg bële bi mu bàyyee dëpp néeg bi laata mu koy jeexal sëriñ bi yónni sëñ Omar Anta a Gueye ci seex yu mag yi la woon moo jëli woon sëñ Basiiru Mbàkke jox ko sëñ Tuubaa bi sëñ bi jugee ci géej gi bay laaj sëñ Basiiru mm-hmm. sëñ bi yebal ko ni ko demal waxal ma gan gee fi ñëw na taxaw bu mu defati dara mm-hmm. yàlla wàcce na ko gërëm ko yenantu bi wàcce na ko gërëm ko man Ahmadu wàcce naa ko gërëm ko mm-hmm. ndax diguma ko fay ko lépp li ma yor dama ko war a fay fay moroomam te bu wéyaatee pas-pas bi mu indaale sama kër bu jeexalee dëpp néeg bi bàyyi lépp ku waaratee fayu sama kër da nga dem ci moom ndax lépp lay jël kon na taxaw defe naa koo ko pas-pas bu rëy la ñëwee ci sëñ Tuuba mm-hmm. kon làq na ak jigéen yàlla làq na ak jigéen yenantu bi alayhi salaatu wasalaam waaye làq na jigéen sëriñ Tuuba sëñ bi gërëme na ko nu nekk mm-hmm. ndax sëñ Tuuba moo ni dem naa ba sama kër lu ma dëgmal mu ni ma Seex Isaa moom fi indi gërëm naa dem naa ba lu ma bëgg laal rek mu ni gërëmal ma Seex moom fi indi mboolem yi ci kër gi yu bari ci addiya seex saa ko fi daan indi dem na ba sëñ Tuubaa nii dem na ba peru sàkke di yépp di seereel seex isaa hëddiyaam ci kër gi ni ko mbàkkee goreel ko ci sawaraak ku ko topp te loolu lépp mën a joxe hëddiyaa ko may seex isaa kon sëñ ibrahima Diop almasari ni xaasal mafaaxira isa jenn zul karami wa faasa bil qurbi wa ridwaani waaye nag bil xidami ci liggéeyal sañ Tuubaa la ko amee nag mhm. am na ngërëmu yàlla de bu wér waaye mu ko jaare nag ci liggéeyal sëñ Tuubaa mu ni nag xibbul xadiimi wa misbaaxu tariqatihi bi istanaarat liman yamshi bila dulami mu ni nag kooku di Cheikh Issa xibbul xadiim moo nekkoon soppeeb Serigne Touba bi kon moom amoon na tawfiix Serigne Touba da koo soppoon fu mu ko gisee muun xibbul xadiimi wa misbaaxu tariqatihi Cheikh Issa Diène moo nekkoon làmp yoonam wi ab làmp la woon ci yoonu lislaam waaye làmp la woon ci kër Sëñ Touba. ku bës a mës bëgg ko la leeral bu ñëwee ci Seex am yoon wu gaaw te leer nañ kon misbaahu tariqatihi làmp la woon ci yoonu sëñ Tuubaa bi bii ci dara Seex Isaa daal istanaarat daana leerlu daana mën a leer bu baax liman man ñeel koo xam ne yam sii dafay dox bilaa zulami ba dootul am benn lëndëm mhm. kon bépp taalibe bu bëgg a dox ci ngërëmu sëñ Tuubaa doo am lu lëndëm nee na maam Cheikh Issa làmp la woon bu la daan leeral mu ni fattan jëmm la woon joo xam ni adibun ku bari woon teggin la kon li ma waxoon dikkaat na Cheikh Issa ku bari woon ay teggin la diggam ak sëñ ba adibun waaw waaye mu ni aribun ku rëyoon gis-gis la xanaa gisoo rëy gis-gis a tax mu defar jumaay njaaree mm-hmm. rëy gis-gis moo tax ci 1918 mu mën a sumb loolu liggéey ko ba mel nii ma mel 2021 jaaxal ñëpp mhm. kon ku réyoon gis-gis la aribun mhm. mu ni waaye mooxizun mhm. ku ñu yee la ñelawul de ku ñu yee la ku xam li xew la waaye yaqizun ku yeewu la woon Seex Isaa xel mi dafa rëy mu xam ni ñuy jariñoo ci sëñ Tuubaa mu ni waaye Seex Isaa darrun ku baax la woon dafa baax mbaax képp la làmboo woon mu ni kar yi mun maam Cheikh Issa Diène ko teddangook mhm. jëmm ji di Cheikh Issa Diène mhm. mu ni jawaadun ku tabe la woon te bu ñu waxalee di tabe na mooy kooka daal am na ngërëmu yàlla ku tabe la woon mhm. mu ni nag tab goo xam ni mux ji lu diyami gàcceloon na taw waame tawu waame mooy taw biy sotti di ñoral tool yi li muy mën a joxe joxe joxe Cheikh Issa ko dàqoon a joxe moom tawu waame mu ni rabbul jifaani yaa ngi may laaj kan mooy Cheikh Issa mu ni moo nekkoon borom mbana ya rabbul yi moo nekkoon boroom baagaan ya nu ñu koy waxeeti sax bagaan kay bagaan yi ñuy togg di di yekk mhm. mbana ya Cheikh Issa ko daan dajale ca këram ya boo demee njenne dañuy sëf mhm. ay gëléem di teg di di looj ay baati gëléem di togg ay ndab ay mbana di ko séddale kon kooku moo nekkoon rabbul jifaani rabbul jifaani lëtii da ban xadim talaat bil urzi wal laxmi wal ahbaasi wad dasami nee na Cheikh moo nekkoon borom mbana yi nga xam ni mm. mbana yi da daan fees dell dell dell ba rembet mm-hmm. ak lan bil urzi ak ceeb wal laxmi mm-hmm. ak ndawal mm-hmm. boo demee kër Cheikh mbana yi day fees ak ceeb jamono bi ceeb jafee lekk wal ak ndawal wal ahbaasi ak mburu ay mburu xubsu jàmm bi mooy axbaas war mi ak diw nga xam soos bi jamono soos di jafe Cheikh Issa këram soos la ñuy dégg nga wax ci mhm. kon dana am soos di am ay tufe mhm. di ami mbana yu muy togg di joxe mu ni wa bi mataimi mhm. anha kalla muftaxirun bi zabxi li dayfi min urbin wa min ajami ak a mën a woy sëñ Ibrahima Masar neen muy wabi ba temps mi bu dee bërëb ya ñuy lekk ci këram nag muy ay restaurant ya fa am restauration wala boog muy cuisine ya waañ ya fa mu daan def ñam ya boo duggee kër Cheikh Issa mu ni anxaa wëlif yooyu bërëb kal la muftaxil ku doon tiitaru bu fa ñëwee day lot léeg-léeg nga naan maa mën a bernde rey naa ñaari nag ci màggal nee bul dem kër Cheikh Issa boo tëralee ñaari nag boo demee fekk ma mu rey junni nag sa wet kon kuy tiitaru ci mën a joxe ñam bu dugg ci wanag ya kër Seex Isaa wala nga dugg ca waañ ya wala nga dugg nee na ca bërëb yi ñuy xéwloo da nga ko fekk lu tax nee na nga lottu xam ni mënoo lii Seex Isaa mënoon mu ni nag moom da ko daan def bi zabxi li fi di looj looj mooy rendi ay baati gëléem ak ay nag ak i xar li tay fi di ko jox gan gi ñëw moo xam min urbin wa min ajami ku jóge ci arab yi wala mudul arab mm-hmm. te maa ngi lay wax benn mbir saa su ma saa looj baatu gëléem ñu tëll ko rendi ko fees Cheikh Issa day wax nañ génne fàllare wa bu dee nag nañ génne fàllare wa bu dee xar nañ génne fàllare wa mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall laa koy jox baabul noonu la fokke woon Cheikh Ibrahima def saa ndaw ñëwee rek Cheikh Issa ni xanaa sëñ am Cheikh Rafal ni xanaa ndaw Cheikh Issa ñëwaat mu ni waaw Fall mu fàllare nag yee xar yi kër Cheikh Ibrahima la ko daan joxe du ko xewloo kër Cheikh Ibrahima rek gërëm ko mu gërëm maam Cheikh Rafal bis mu koy def ba indi fa xéewal yooyu maam Cheikh Rafaal nañ ma indil tey sama bindukaay bi doom te indil ma kayit damaa bëgg gërëm Cheikh Issa ngërëm loo xam ne dama koy seere sama borom ni jëf na ci man ci sama bind ñu dem indi plumier bi indi encrier bi teg maam Cheikh Rafaal génne plume jël encre bi soos ci teg kayit yi bëgg a bind kenn ci soxnaam yi daal di raam ni ko faal njaga bala ngay gërëm seex Issa nga may ma ma seere ci moom mhm. maam Cheikh Rafaal ni ko bisimilah mu ne ko nun ñii di liggéey sa kër di fi jaamoo yàlla day mën nañoo waat ni bu fekkee kër sëñ Touba daa am course bu ñuy fëx di rawante mhm. Cheikh Issa kenn du ko raw ngir jëfam ci yow maam Cheikh Ibra Fall ah bu ngeen demee neen ko jaratu la bind loolu soxna si wax maa ko wax maa ko garanti man Cheikh Ibra Fall kenn mën ta raw Cheikh Issa mhm. bi mataaimi anxaakal la muftaxirun mhm. bi zabxi li dayfi min urbin wa min ajami kuy Cheikh Issa mu ni amma hëddaayaahu laa tuxsa ala ahadin bi nutqi bil fammi aw bil xatti bil qalami nee maam Cheikh Issa hëddee yim daan jox sëñ Tuuba léegi li sëñ Ibrahima Diop Masar wax nee na hëddee ji maam Cheikh Issa daan takk di ko yut sañ Tuuba amaa hëddaa yaaw mu ne laa tuxsa ala ahadin kenn mënu koo lim ci kenn fii ne bu sëñ xaami jun toogoon ma toog junni murit ni ñun toog ku ne di bind di calculer def ci ay feuilles naan Cheikh Issa yóbbul la sëñ Tuubaa nangam nàngam dañuy wër ba sonn bàyyi te da tax ñu matal kon ama hëdda yaaw ndaal addiyeem daan jox sëñ Tuubaa mu ni laa tox saa dee fu ko takk ala ahadin ci kaw kenn mën ta fexe lim ba xam ñaata la tolloo moo xam nag bi nut xi bil fammi lu ñuy wax ci làmmiñ aw bil xatti bil xalami wala lu ñuy bind ci xalima kenn mënta lim addiyee Cheikh Issa nu mu toll ki ngay woy ku mu doon mu ni wasiru cheikhin moo nekkoon kilifa gu sëñ Tuubaa teg ko defe comme wasiiram mu mel ni ministre ci moom def ko wasiiram mu mel ni njiit lu sëñ Tuubaa teg ni roy leen ci moom def ko wasiiram mu mel ni bras droit bu mu teg ni xool leen ci moom kon wasiiru cheyqin dafa nekkoon kilifa di njiit lu sëñ Tuubaa teg tànnal ko boppam wasiiru cheyqin waaye bi mu ko tànnee ala raxmil xasuudi saa bu nu tànnee nit nag faawa yeneen nit mer moo tax mu ni kon wasiiru cheyqin ala raxmil sëñ bi tànnoon na ko daal jiital ko ci kaw donte dafa am ñu iñaan ci loolu bañit dañuy dee ci seen kiñaan waaye sëñ Tuubaa ko jiitaloon moo tax mu ni waziru sayxi ala raxmil dafa lim moom si Ibrahima nee na ana ñaata yoon la ko sëriñ Tuubaa jox moom Cheikh Issa loo xam ne lu nëbb la ak lu feeñ te féete kaw lépp luñ doon xalaat sëñ bi jox ko ci lu nëbb ak ci lu feeñ xanaa xamoo ne li sëñ Touba mujj mu Seex Isaa ko togg li sëñ Touba mujj mu dem aljana Seex Isaa ko togg ci loxoom sëñ bee ko woo lu mu ñëw mu jox ko lu mel ni sànqal ne ko nanga ko togg togg woo xam ne doo ci juum doo ci jam mu ne ko mbàkke ko bañ a jamu ci bu lay toggal nu muy def mu ne ko looy door da ngay wax bisimillahi rahmaani rahim looy teg wax ko ba keroog ñam wi di ak mu ne ko incha allah mbàkke mm-hmm. sëñ ne ko na ko teelu nag te fas ci li nga bëgg ndax ñam wi reese àjjana dañ koo war a teey ñam wuy reese àjjana dañ koo war a teey ne ko ndax xam nga nu ñuy xamee ñam wuy reese ji aljana mu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne ko suñ ko tiimee day lox <laughs> te isa ko ñu mujj a mhm. kon am naag sëñ Tuubaa jataay yu mu amut ak kenn àgg naag moom fu mu àggut kenn gërëmee na ko nu nekk noo tax sëñ Ibrahima Jóob almasari ni mhm. kon ñaata yoon la ko sëñ Tuubaa jiital